Heavyweight.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 jeexee pour nga gis fooy chargé sa gaz da lay waaye lu manqueel gaz gi moo tax jëwriñ di ñu dénk wàllu gaz ak pétrole di Félix Antoine John kenn na def ci ay leeral nee na produit gaz bi ci boppam moom manquéwul ci réew mi li manqué kay mooy buteelu gas yi ñuy sol gaz ga waa fu buteel yi jaar jëwriñ di yokk ci ne lu tax buteel yooyu manqué dafa am ay buteel yoo xam ne dañuy def fii di dugg ci sous région bi waaye ana suñu douanier yi man ma yokk ci nii mbaa du yenn butéel yi nga xam ne nii dafay provoquer ay explosion gars yi seetuñu ko settantal daal di denc ak lu ci mënti xew daal mooy léegi dangay bugg a charger sa gaz wër ba sonn doo gis foo ko charger moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca géeja waaye romb na doy war cabinet boo xam ne foo dentiste moo fa nekkoon di faaj la commissariat bu géeja waaye démantelé waaw góore waay foo dentiste bi mu ngi woo ci turu kaabe di ab élève boo xam ne terminal la bàyyee njàngam at yi toll ci fanweer ak ñaar moom daal cabine boobu nee ñu bàyyam moo nekkoon médecin dentiste boo xam ne daf ko jàngoon nekkoon ci ab expert daal di koy ubbi waaye nag bàyyam bi mu génnee àddina ci la élève bii di kaabe dal di donne baay ba ma ne te jàngu naka noonu xëy sol bulusu baayam di utiliser kase ba baayam doon utiliser ci doxal cabine ba cay mim réew sa nag li ko daane mooy dafa consulter benn patient gannaaw bi mu consulter patient boobu dal di koy digal yoo xam ne daf koy jëfandikoo gannaaw bi mu jëfandikoo liñ ko digal patient bi put bi dafa néewi ba maara deetaali naka noonu ci la demee ci centre de santé bu Wakhinane Nimzatt waa ji mu yegsee ci centre bi fa saa si lañ ko transféré urgence ci l'hôpital bu Fann gannaaw bi loolu amee na ci la ñu ki nga xam ne mooy commissaire Bodian bu Géejawaay naka noonu mu mëne ay enquête dal di def seeni pexe ba teg loxo foo dentiste bi nga xam ne baayam bi nga xam ne moo jangoon métier dentiste dafa génn àdduna mu donn cabinet bi fi mu ne teg nañ ko loxo ma ne nag de réew mi mooy loolu yow médecine jàngoo médecine xamoo luy médecine sa baay jàng médecine ubbi ab cabinet dee nga ne da ngay doon métti ma te jàngoo ko wér gi yaram kenn du ko fooye mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz